bi ñu dippee bassin arachidier ci la candidat république des valeurs Thierno Alassane Sall ŋàññee bu baax politiku mbéy bi président Macky Sall tànn ci fukki at ak ñaar yi jiite Sénégal Thierno Alassane Sall nekkoon tournée ci biir Saloum ci benn meeting bu mag bu mu doon amal ci campement commune bu Latmingué moom jàppee na fukki at ak ñaar yi Macky Sall jiite Sénégal ni yaakaar gu tas. laaw président de la république 12 ans yi dund ngeen ko gis ngeen ko yéen nappkat yi wala sàmmkat yi wala béykat mu ngi jar ci taax yi wala fii ci campement mu ngi fi jar téeméer wala 600 francs téeméer ak ñaar fukk maanaam bu dee système boobu moo wéy béykat bi du du du tàqalikoog ndóol ba ilaa yow mi diin munoo jëndee mbir. mënoo jaayee mbir francs yow nga soxla ko jëndee ko 600 francs Thierno Alassane Sall profité ci karloom ak askanu Saloum ci moom mu ñaan askan wi ñu bàyyi xel ci ger gi nga xam ne mu ngay takkar naa si surtout si jamono ji nga xam ne ñu ngiy wut ay parrainage bu ngeen seetaanee suñu réew dina yàqu ngeen toog di parrainer nit ñi pour francs wala francs wala di dugg ci ay bis pour ay 1000 francs ci tontu bi mu doon amal ci blocage yi ñuy amal ci cortège leaderu l'opposition yi ci seen tournée yi ñuy amal ci biir réew mi moom jëwriñ ju yore woon wàllu l'énergie jàpp ne lii ak li mu gis Sénégal nekkatul réew. ñu ngi bloqué ay caravane ay kàngamul opposition bi jamono jooju benn bokk yaakaar moom mu ngi amal seeni réunion ci biir pale bi loolu jaaduwul lii du réew. ci tournée ñetti fan bi mu amal ci biir département bu Kaolack candidat république de valeurs moom wër ay gox yu fasantikoo ci biir Saloum ligi lat méngee fépp fu mu jaar askan wi engagé wu dinañ pare ne waaye tam dinañ woote bu baax ki nga xam ne mooy candidat république de valeur di Thierno Alassane